am na koo xamante ne nii nag euh, moom moo joxe fausse alerte ba tax avion bu waroon a jógee ca Cap Vert capitale ba Praia doon jëm si Sénégal nag euh, ñu tardeel ko bu baax a baax ndax daf ni gis na loo xam ni bomb la ba tax nag euh, ñëpp jaxasoo foofee loolu nag tax na bañ ubbi ci ab enquête waaye Air Sénégal moom nee na dana porte plainte dañuy déglu ki foofe foofee wàllu jokkoo gi di pap Ibrahima Diassé ci jokkoom ak Pape ba mbir mi démb la xew ci aéroport Praia. xew mooy que benn sénégalais moo lancé alerte à la bombe mu ko lancé ciblé nag avion bi nga xamante ne ni avion Air Sénégal la te mu waroon jógee Praia ñëw Dakar moom ci avion boobu la waroon dugg bi mu ko defee nag indi na tuuti jiixi jaaxa ndax euh, xawoon nañu tiit ci aéroport bi loolu waraloon ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jiite aéroport bi police ak ñi ci war yëpp euh, tëj aéroport bi ngir fexe euh, xool ndax lool ñu wax noonu am na wala amul donc ñu tëj aéroport bi sécuriser ko

Euh, def fuy war bi ñu ko defee ñoom ci seen bopp wax nañ ci résultat yi ñu jot léegi léegi ci bi ñu ko defee ba pare ne euh, loolu ñu wax noonu ne bomb am na ci amul lu ñu lu ñu lancé woon la rek donc bi ñu ko defee après ci la avion bi del ci waat ci ngoon mu am tuuti retard nag d'ailleurs Air Sénégal jéggal na ci bu baax ñi nga xam ne ñoo waroon jël bel bol boobu léegi nag euh, liñ ci mën a wax mooy enquête ubbi nañ ko ci ñu ko ci ubbi mooy autorité yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci aéroport prayer. ginnaaw yéen bu ngeen defee plainte. justement Air Sénégal déposé na plainte mais pour le moment dañuy xaar résultat yi nga xam ne moo nar a jugee ci ci enquête boobu pour xam naka la ñuy wéyalee suñu plainte ak ban ban taxawaay la ci am. mais au fait lan ngeen di viser ci plainte bi. waa pour pour pour leeral xam déjà ki def loolu lan moo tax mu def ko ak lan moo tax mu ciblé ciblé avion Air Sénégal. moom fu mu basé Sénégal ou Praia. moom Praia la waroon a jugee ñëw ñëw ñëw Dakar ci avion bi nga xamante ne nii euh, moom la ñu ciblé woon.